asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuy ci turu comité d'organisation bu Màggalu Tuuba ci commission bi nga xam ne mooy commission santé hygiène ak affaires sociales euh, te yàlla def ñu yore commission sous commission bi nga xam ne moo yore wàllu vidange fosse septique yi euh, kaddu yi nga xam ne moo ñu tax a jóg nag tey ak leeral la rek gu gàtt boo xam ne dañ koy jëmee ci mbooleem ñi nga xam ne daanañu sekk ak ñoom vidange yooyu ren yàlla dafa dogal euh, jafe-jafe am ci tuuti jafe-jafe bi nag yàlla def na du ci coobare yi comité d'organisation nekkul ci coobare yi état mi nga xam ne moo ko doon joxe waaye xëy na dogalub yàlla la boo xam ne am na ab jullit nag su dogal dikkee daf koy nangu euh, loola moo di ne oto yi diirub bi nga xamante ne bi magal gi dugg na ci nawet ak léegi dañu daan sàkk muy ñëw lu jiitu weer fa safar di teru ren jiit sàkku woon nañ ko kilifa yi nga xam ne ñoo ko war a joxe it nangul loon nañ ñu ko ba it def nañ ci itam wax dëgg yàlla seen kéemtalaay kàttan ci ay jéego waaye yàlla def nag mu am tardement bu toll ci juróom benni fan yàlla def it ñu daan am lu toll ci juróom fukki oto yoo xam ne moo daan liggéey lu toll ci ñaar fukki fan donte contrat bi fukki fan lañ ci def waaye li li voyage yi ñuy def mënuñu ko def ci fukki fan ndax oto yi ñëpp xam nañ ne dañoo màggat moo tax dañ ko daan yaatal ba dem ci ñaar fukki fan ñaar fukki fan yooyu nag ren perte nañ ci lu toll ci juróom benn fan yoo xam ne jotuñoo ñëw ñu ñëwee juróom fukk lañ daan doon yàlla def na li jot a ñëwagoon ba fii may wax ak yéen nga xam ne ñi ngi tey jii ci juróom-ñetti fan ci weeru safar mi ngi toll ci ñaar fukki oto ak juróom kon nag day ma day loolu day firndeel ne mbooleem li nga xam ne moom lañ daan def ci ay voyage dana manqué lu baree baree baree baree bare ci waxtu wiñ ko daan defe ñi ngi séntu nag ay ndollan yu war a bàyyikoo yu war a dollikuwaat ci loolu waaye ndollan yooyu nag yàlla def na egseegul ñi nga xam ne ni nga ni daana fekk ñu jot seeni i te ren ñu bari di ci jàmbat ak a coow lii mooy li sabab yeexaay boobu kon nag ñu ngi ciy jégalu mboolem mbokk yi di ci jégalu mboolem kilifa yi di ci jégalu Euh, service yi nga xam ne xëy na tàmmoon nañ daan leen ko defal te ren mënula demee nam daan demee ndax waxtu wi mayeetu ko te li fi nekk itam mayeegu ko kon nag ñu ngi ñu xam ñëpp nañ maase xam ne ku gisul oto bi agsiwul ci yow te mu daan agsi ci yow nam daan toll daf ne tolloogut loolu it nag du ne jubluwaayu ñi koy joxe la du jubluwaay itam ñi ñu ko jox ñi di ko joxe waaye xëy dogal la bu son borom dogal mu am ci biir liggéey bi liggéey bu ne nag day am jamono yàlla def ci ay jafe-jafe ba xëy na nañ koy bëggee du ni mën a amee waaye loolu rek la waaye ajuwul ci coobare yi ñi koy joxe ndax def nañ ci liggéey bañ ca war a def ajuwul itam ci suñ coobare yi bi ndax ñoom it niñ ko war laaj laaj nañ ko ñële itam def nañ ci seen kéemtalaayal kàttan xëy na lii dogalub yàlla la bu am waaye na ko ñëpp jàppee noonu kon ku ko gis mu agsi ci yow ne agsi na ci yow danañ def suñ kéemtalaayal kàttan ba lépp luñ ci mën a ñu def ko ci li fi nekk ak li muy néew néew waaye loo xam ne xaaj ba ma manqué na lu toll ci xaaj bi ba waxtu wi ñu ko daan def xaaj na ma te tardé na it lu mat juróom-benni fan yoo xam ne daan juróom fan yooyu lu gàtt gàtt daanañ ci liggéey lu mat 1000 voyages loolu it faaw mu feeñ ci mu impacté ci liggéey bi nga xam ne moom lañuy liggéey kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax ne loolu rek lañ leen bëggoon a leeral ngir ku am pexe moo xam ne mën nga koo def nga def ko bañ a toog di xaar. suñu accès ci yow nga xamne ne rabbil alamin suñu accès ci yow fekk defoon nga pexe ba wàññi la nga waroon jël jël alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh